asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di fay bu baax euh, di fay mbokk internet yëpp mbokk site internet yëpp ak waa SBT Média di leen di ziar di leen nuyu di rafetlu bu baax seen émission bi ngeen ñu interroger pour ñu mën a wax si mbiru Sam Vision. ñu ngi lay seetaan miinu ñu tey boo doon wax euh, kii wax nga présenté ñu xam yaay kan. waaw ñu de benn ndongo daara lañ rek boo xamante nii dañuy dox si wàllu njënd ak njaay euh, bon xëy na peut-être yàlla dogal na ñu ngi yëngu si wàllu mercerie ñu gën ñu xam si mercerie Al Amine euh, fële si Diourbel euh, ak Mbour Mbour nag lañ ko dooree parce que mbuur daanaka def nañ ba plus de onze ans mën naa ne ren ñu ngi dugg suñu douzième année fukki at ak nangam def nañ ko fa kon donc ñu ngi ñu ngi œuvre foofu. en plus euh, ñu am ay vision yaatu euh, ñu dem tamit di œuvre euh, fi nga xamante mooy Jurbel yàlla dogal nag ñun doomu Jurbel lañu li tax ñuy œuvre Jurbel si suñu wàllu liggéey c'est parce que fa lañ juddoo yaroo fa màggee fa jàngee fa lépp lu ñu am ginnaaw yàlla foofu lañ ko amee lépp lu ñu xam foofu lañ ko xamee moo tax ñu ñëw ñu ne pourquoi pas ñu ñëw participer si développement suñu dëkk nga xamante ni mooy Jurbel waaw loolu moo tax aussi vraiment al amin mercerie Al Amine moom day euh, day servir pour la population sénégalaise mais particulièrement Mbour ak Diourbel. ñu gis tey Sarak xewle nga bàyyi site yëpp ñëw sa relation ak Sam Vision. waaw Vision euh, mën naa ne suma relation ak moom si sunu benn xarit sunu mbokk sunu mbokku taalibe muy Medine Diop si si moom la jóge parce que Médoune moom ma xamale ak moom présenté ma ko jox ma numéro téléphone am ñuy déggante waaw Sam Vision su ma ne la yàgg nañ di liggéey man ak moom ñu ngi doog gisante tey ñu gisante tey kon euh, dañuy xam ne loolu yëpp euh, wàllu liggéey moom boo si nekkee euh, nga sérieux mu sérieux ngeen collaborer di liggéey mën a amoon naa mën ngeen a toog ay at doo leen gisee mais tey la ñuy doog gisee parce que bii mooy deuxième édition première édition bi yàlla dogal na daaw la woon ba ñu xamante léegi si ay huit mois lay tool kon matagul at donc ñu ñëw yàlla dogal ñu fekk deuxième édition bi mu yàgg di ñu ko wax ok ñu ne ko amul benn problème parce que sa yëf suñu yëf la kon loo nekk dañ see war a ñëw jàpp si kon loolu moo ñu indi tey euh, donte euh, xat na lool euh, Jurbel lañ jóge xëyee fa ñëw war a gontaat incha allah ñibbi fa mais dañu ne xat na lool mais alaakulli xaal moom bu xewlee rek lu ñu war a def mooy lu ñu war di jàpp ñu bàyyi ko te ñëw. waaw léegi nag Médoune moo ñu xamante comme ni ma ko wax maa ngi koy nuyu de passage suma xarit la parce que si moom la jógee ñuy déggante téléphone ba yàlla dogal ñu gisee nii tey mu doon lu rafet aussi mu doon koo xam tam ku gëm boppam la ndaw la mais ku gëm boppam la liggéey rek lay def mu ku baax ku yaatu koo xam damay am benn soxla na ko saam lii laa bëgg mais da ngay gis fat fat mu taxaw si daal di ko defar kon donc dañ koy ñaanal rek. Euh, fu mu bëgg àgg moo ko xam yàlla àggal ko fa si wàllu projet wàllu liggéeyam wàllu léppam daal parce que société sans vision mën nañ ne société la mais dañ koy ñaanal yàlla yàlla def nganti société yooyu ñu koy dégg au niveau international fépp euh, yàlla mun na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def. c'est la première fois nga nga nga ñëw ci événement mel ni muy événement shooting da nga ko doon dégg rek mais c'est la première fois nga assisté ko. waaw si événement shooting que dañ ko doon dégg rek pratiquement. parce que wax dëgg yàlla euh, gis naa ne daal neex na jaar na yoon et que vraiment macha allah lii tamit aussi def ñuy permettre rek ñu am expérience ci yenn affaires yi donte des fois am na yu bëri yoo xam da nga koy dégg mais boo si demoon doo si mën a am expérience quoi. informa euh, lan moo si gën a impressionné tey ci événement bi. Hmm? lan moo si gën a impressionné moo si gën a impressionné quoi. waaw lu ma gën a impressionné mooy mu euh, woote ñu wuy si la yombul quoi te loolu ku ku ko am rek. Euh, mën nga ne sa liggéey moo rafet ak dayo bi nga am si nit ñi waaw et que vraiment gis nga ne bëri na fi ay nit ñoo xamante ne euh, c'est la première fois nga gis leen tey te macha allah ñu ngi fii vraiment liggéey bi jaar na yoon parce que amaana bu jaarutoon yoon doo fekk ay nit ñu bëri kon donc day war ne euh, liggéey bi jaar na yoon te mu ngi koy def ni mu ko war a defee. kon donc vraiment loolu lu ma impressionné la si bis bi mais bis bi macha allah neex na daal neex na trop. yaa ngi xam ñu Média rawatina euh, ñi nga xam si ñoom ñooy jëfandikoo mooy euh, euh, mercerie Al Amine ah macha allah nga am ko Diourbel am ko mbuur ah est ce que mën nañ ko xaar ci yeneen ci yeneen régions yi. waaw mercerie Al Amine comme li ñu waxoon rek Mbour la dooree parce que ñun dañoo tàggat si liggéey yar ñu si muy nuyu. passage sunu njaatige sunu xarit sunu mag sunu kilifa ñu muy Abdou Niang ñu gën koo xam si IBC waaw kooku ñu mooy sunu kilifa si liggéey bi moo ñu yar moo ñu tàggat moo ñu orienté moo ñu may fit aussi ba ñu mën a dem euh, di créer ay mbir kon kooku dañ koy ñaanal yàlla man dama koy ñaanal yàlla yàlla euh, may ko mu àggale ak sagoom yàlla suturaal ko aar ko parce que kooku man dama naan bu man su may ñaan sax damay fàtte sama bopp moom laay ñaanal ndax gëm naa ne bu demee si kanam ma dem si kanam bu yëkkati koo sa kaw du ma fu fu mu nekk du ma fa bàyyi daf ma yóbbaale kon kooku laay ñaanal yàlla kooku moo ñu motiver may ñu fit ba def tey ñu mën a taxaw dem di créer ay mercerie al amin waaw mercerie al amin yi mbuur la déparé wax naa la ko ñu ñëw jurbeel parce que ñun doomu jurbel la ñu lu ñu mën di def si àll bi rek Euh, bu ñu dellu si waatul suñu base def ko fa rek dootu amati sens loolu moo tax ñu ñëw créer ko Diourbel ñaan nañ yàlla aussi bu ñu gisaatee feneen foo xamante ne nii yàlla dimbale nañu tamit ñu am fa connaissance bi gis ne bu ñu ko fa installé dina dina yàlla dinañu si jàppale bu baax tamit incha allah pare nañ pour def ko parce que ñun ba léegi dañuy circuler si région yi fu nekk lañuy dem waaw am na région yu bëri yoo xam xam nañ fa am nañ fa ay clients aussi dañuy jëflante ak ñoom kon merci Al Amine euh, vraiment ay clients am ak yëpp. ñu ngi leen woo pour ñu jàpp si société bi te xam ne même si amin société la donte tamit ñu ngi mi ngi metti yaa ngi koy def mi ngi metti di di di di am ay affaire mais dañuy jàpp ne mbir moom dañuy lu tubaab bi wax tout début est difficile kon donc dañ see nekk rek euh, di liggéey ñaan yàlla rek yàlla dimbale ñu ba suñu yéene ñu àggale ko incha allah. defal la bañ jël sa temps lu bari nga bàyyi la nga tàggoo. Hmm? nga tàggoo ñu jaajëfal la. waaw jaajëfal ñëpp du jaajëfal waa Mercerie Al Amine ñëpp ak ay clients am yëpp ak ñi koy accompagne si liggéey bi waaw vraiment ñu ko mel ne euh, ku mel ne Mouhamed Faye Mouhamed Faye maa ngi koy nuyu au passage parce que suma xarit la suma lépp la te suma conseil la du nuyu Aline Badara Gadiaga mii ma àndal nga xam moom it sama xarit la fu may dem damay ànd ak man. Euh, et puis moom it euh, vraiment mu doon nit ku baax ko xam day jàpp si liggéey bi aussi ak yeneen emploi yi nga xamante ñi ngi si biir ñu mel ne ay ñoom Yaama ñoom Ousmane Bari ñoom Xaadim gaa yëpp samay compagnon lañ si équipe bi équipe euh, liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi si di def bay seen waar dañ leen ñaanal yàlla rek tamit yàlla dëgëral leen sàmm leen bañ mën a gën jël mbir mi yóbbu ko fu gën a kawe kawe parce que avec man kese dara du sotti donc da nga am équipe àndal ngeen mën a liggéey affaire yi yaatu incha allah. kon donc ñu ngi jaajëfal ñëpp du jaajëfal seen site internet bi SBT Média euh, vraiment macha allah seen liggéey rafet parce que sa internet bi souvent dama leen suivre damay gis ay émissions yu bari mais gis naa ne yéen a ngi def ni mu liggéey bu mucc ayib yàlla na yàlla dëgëral ko yàlla dem def ko def ko télé bu mag a mag a mag incha allah yàlla mën na ko di nuyu téléspectateur yëpp ah. incha allah xam naa ñu fekk la Mbour fi seen i seq yow waxtaan wala Diourbel ah, fu la fekk rek incha allah seq waxtaan ndax SBT wax naa na ah, euh, moo moo gaaw ci li nga xam ne moom mooy soxla askan wi ah, mi ngi noonu dinañ jox nag ngeen abonné ba seen touche cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën ci ànd ñun ñu jaajëfal ko ndax wax dëgg yàlla nit ku baax la kilifa la ah bàyyi yitteem ndax Sam Vision vraiment ñëw jógee ba njaareem wax dëgg yàlla mi ngi lay jaajëfal baax a baax di ñaan al amin yokk ko ak mbooleem ña fa nekk ñëpp ci barke yonent bi salaa salaam kon noonu lañ koy toppalee programme bi rek ah xoolaa leen keneen ah fas yéene seq mu waxtaan incha allah ñu jaajëfal lu baax na sant la baax gërëm la. soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. présenté wu. ah man la Ndeye Marème yaay bébé Yacine ah, ñu ñëwoon ci jouru sam dafa baax bëgg ma bëgg sama doom man ginnaaw yàlla bébé Yacine moo tax ma xam ko ndax si may njaay la ko xamee mais jour anniversaire bébé Yacine dafa bàyyi lim doon def yëpp mu ñëw déplacé wu ñëw ba foofu foto ko te laajuma dara dëgg saa borom baax la chaque instant mi ngi may message yu nemmeeku bébé Yacine moo tax bi mu ko mariné moo tax ñu kontaan si trop ñëw ñu ngi koy ñaanal lii mu eggale ko fu bëri fu soree sori lim si yóotu yëpp yàlla jotale ko ci barke Mouhamed. dégg événement bi bébé Yacine ci marraine la bokk. waaw bébé Yacine marraine la bokk moom laa indi ko waaw. mais ñu ngi. kaw mu ko.

ak sama ñoom bàjjen. ah man sama euh, ñëpp daje mu tuddee ko euh, xale bu ndaw bi wax dëgg yàlla loolu euh, affaire la bu boo xam si ni marqué la. Mhm. waaw sam la rek oyofam ak baaxam moo tax kenn ndax mënoon na ni bébé yaas xale yooyu mais daf koy yëg daf koy message di ko nemmeeku di ko laaj si lu mu nekk loolu daal kontaan naa ndax xale doom moom dañ ne ko boo bëggee njabootam rek yaay dañ koy bëgg mais sax moom dafa baax macha allah mënu wax bu baax daal mais kontaan si moom kontaan si moom bu baax merci beaucoup. c'est ñëw ci événement bu mel nii. waaw c'est la première fois ñu soog see ñëw nag waaw. ah macha allah macha kontaan nañ fa tey leer na te am nañ ak accueil bu baax waaw kontaan nañ. client yi nga xam ñu ngi koy suivre à travers SBT Média. waa ñu ñëw bu baax sax moom ñàkk a xam wóorul ku bëgg photo yi leer rek na ñëw incha allah merci beaucoup. internet yi bàyyi xel SBT ba tey nii wax naa la ñu ngi ci événement bi nga xam si nii événement Sam Vision bi la ñu waxoon leen ko muy deuxième édition shooting bi tey nag ñu ngi fii nii gàddaay sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fay sëñ bi ñu ngi lay fay donc euh, di di nuyu l' ensemble des internautes de SBT TV. donc euh, di nuyu vraiment Sam Vision bi nga xam ne mooy l'initiateur de cette importante activité ñu naan ko shooting donc ñu am mbégte bu baax teew fii maa ngi tudd nag Pape Moussa di responsable politique Alliance pour la République donc euh, tey Sam aussi di sama rakk ñu nga xam ne suñu yaay yi ñoo bokk ndey ak baay donc muy sama rakk nag mu ma féeteel mais dama koy féliciter parce que non seulement il est jeune est très ambitieux audacieux mais il est très entreprenant donc ñu ngi koy encourager en tout cas ci les sur les différentes initiatives yi nga xam ne euh, en tout cas mu ngi koy def boobu ba léegi ba ma ko xamee ba muy nekk xale ba tey donc tey ji à travers sa structure ñu dénommé Sam Vision ñu ngi koy encourager di ko ñaanal mu gën a am taxawaay ba incha allahu rabbi ñu dégg ko fépp fi nga xam ne ñu ngi fay dégg euh, mag ñi euh, en tout cas vraiment tey mbégte lañ am ci teew fii Euh, xëy na sax man du ma parrain mais sama jabar mooy marraine malheureusement et elle est indisposée euh, donc munul ñëw ci ngànt boo xam ne mënul euh, bu imprévu donc mais franchement en tout cas nous somme de tout cœur avec avec lui et nous sommes vraiment à le soutenir à la réalisation en tout cas de ses différentes ambitions incha allahu rabbi je remercie vraiment ses amis ñoom Yahya son grand frère Lamine et papalaay Lay aussi en tout cas toute l'équipe qui le soutient à travers ses projets en tout cas maa ngi leen di maa ngi lay jaajëfal tamit bu baax a baax a baax sañ bi jërëjëf ñàkk xam naa incha allah euh, xam naa comme fi ne yéen ci kuje gi incha allah ci ci li nga xam ne moom mooy nguur gi du ñàkk incha ñu amal émission politique ndax SBT wax naa la émission coowal politique du ñàkk ñu waxtaan yow mais ci événement bi nga xam si tey euh, Sam def na ko muy événement boo xam si nii euh, comme ni ko waxee shooting est-ce que bii mooy première fois nga assister événement bi mel nii. non la première édition demoon naa. la première audition demoon naa tey tamit waaw incha allah ma ñëw mais je vois quand même une net amélioration je vois vraiment mu ngi ba par rapport ak daaw et loolu la ñuy ñaan euh, ñun ay murit lañ te ñun moom maanaam suñuy suñuy jëf maanaam xamuñ ci tànk ginnaaw tànk kanam lañ xam donc moom loolu comprendre na ko ci it mu ngi def ay innovation euh, à travers vraiment ces ces dans ces dans ces dans ces actions et donc sur ce dañ koy encourager di ko féliciter davantage di ko wax mu gën a taxaw parce que le chemin n'est pas difficile c'est difficile qui le chemin disait le président Abdou Diouf je vous remercie. tey bokk na ci jeunes yi nga xam si ni tey bu ay morom yu bëri bu ñu meloon moom tey jafe-jafe yi nga xam si ni jeunesse bi ñu ko dund maanaam duñ ko dund. Bon, là, je profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel à, à, à la jeunesse sénégalaise. Euh, la jeunesse est souvent, euh, est souvent confrontée à des difficultés. La jeunesse, c'est un saut euh, vers, en tout cas, vers un monde inconnu ou en tout, vers, en tout cas vers l'inconnu. Mais ce qui est important, que la jeunesse sache que l'histoire, c'est lui. c'est c'est elle-même qui doit l'écrire warul toog ñu koy subir wala di ko bindal histoire am maanaam la jeunesse doit rester debout la jeunesse doit rester forte et vraiment pour mën a mën a jànkonteel euh, li nga xam ne mooy jafe-jafe àdduna bi et je pense très bien que aujourd'hui euh, euh, cette jeunesse la cette jeunesse sénégalaise war nañ gën a taxawaat ngir mën a xam ne ndax réew mi vraiment ñu ñoo ko moom ñun nous sommes l'avenir mais aussi nu sommes le présent donc nañ gën a jàppante roy ci ñu mel ni Samy am initiative yi ñoom it ñu fexe jël yeneen initiative pour que vraiment xam ne maanaam li nga war a amal sa bopp yow rek yaa ko mën a liggéeyal sa bopp donc yéen tamit waa SBT gis naa ne ay ndaw ngeen ñu ngi leen di encourager di leen féliciter et c'est ça la jeunesse la jeunesse c'est c'est c'est une opportunité c'est une opportunité lu ne mën nga ko def ci jeunesse ci ngay ci ngay ut xam-xam ci ngay am doole ci ngay mën lu bari kon donc moment boobu boo ko tooloo ci àdduna waroo ko caaxaane da nga ko war a saisir euh, saisir toute cette opportunité la au bénéfice de la population donc je vous remercie cher ami merci beaucoup. Euh, waaw man maay Balla Diouf euh, le DG fondateur de la marque Leader voilà. gis ñëw sa xarit xew muy Sam Vision naka nga gisee événement bi tey. waaw événement bu marquant la. aussi tam euh, événement boo xamante ni mënu ma fi woon ñaax a teew la ndax tamit euh, ki ko wootee mooy Sam Vision nekk suñu xarit nekk suñu doom lay depuis au début ñu créé woon marque leader depuis boobu ba léegi mu ñuy jàppale saa bu ñu defee kii mu mu si jàpp di di def ay publicité yu am solo daal moo tax tey daal ñu ne woon foog ñu jaar si journée bu mu xewle jàppale ko ba fu mu yem daal voilà. comme ni nga ko waxee yéen ñëpp ay jeunesse ngeen mais ñu gis ne marque leur bi en même temps gis nañ ne euh, par ci ci bi la bokk ci partenaire ki nga xam ne moom mooy Sam Vision sa relation personnelle boo xam ne si yow ak Sam Vision moom nga si lan la. waaw suñu relation personnelle la woon mais tamit dafa dem ba ba si biir nekk tamit loo xamante ni maanaam en tant que jeune jeunesse daal moom dafa dafa Sam Vision si boobu moom dafa bëgg ay jeunes yuy entreprendre. vraiment depuis le début bañ toogee waxtaan musu musuñu woon gisante c'est la première fois ñu gisante mais Jean euh, nekk na jeune boo xamante ne daal euh, mën naa ne royuwaay la daal royukaay la leader la tamit waaw. relation bi nga xam def ngeen ko est-ce que marque leader mi ngi ciy gis boppam. waaw ñu ngi si gis suñu bopp bu baax sax ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax te du ci du ci journée bi kese ndax euh, yàgg nañu di organiser ñun suñuy plein suñuy journée moom da say jàpp côté publicité bi bu baax. Euh, aussi tam di ñuy jox ay conseil voilà. donc euh, yaa yeneen partenaire pour ñu ñëw jàpp ci bu baax ba voilà euh, di woo tamit jeunesse bi yëpp daal ñu ñëw jàppale ndax ñun jeunesse ñu ñëw mën a jàppale suñu biir Sam Vision su ñu jeune la boo xamante ne ci wàllu audiovisuel lay liggéey genre am na ñoo xamante ni tamit bëgg nañ ku leen jàppale si loolu te Sam ku ko jege xam naa ne di nga am avancement si moom te ñun ñëpp daal war nañ mën a collaborer ak moom. jàppale ko ñu tam ñu jàppale waale suñu bopp ndax xam naa ne suñ suñ ko jàppalee moom moom avancement kese la ñuy la ñuy jural daal waaw. defal baax bàyyi la nga tàggoo. waaw di tàggatoo comme di wax ñëpp daal nañ ñëw jàppale Sam Vision di wax tamit journée bi neex na trop vraiment Marc Leader lu tax mu collaboré ak moom tamit rëccu wu ko rëccu wuñ ko vraiment.